Yewwi Askan Wi euh, pour cette quatorzième législature je pense nag li xew yéen ñëpp fekkee ngeen ko teg ngeen ci seen bët c'est pas la première fois bii mooy la deuxième fois mu am te dañu yaakaar ne assemblée nationale dafa doon lieu par excellence du débat démocratique bu ngeen seetloo waaye Yewwi Askan Wi ñun ci débat de rek lañ dem doo leen ñu gis ñu saaga doo leen ñu gis ñu xaste doo leen ñu gis ñu wax leneen li xewoon ba le passé benn député bu bokk Benno Bokk Yaakaar taxaw wax ay kaddu yoo xam ne tegginu wut ci kilifa diine tey jii nii ku ñu fi saaga sa sëriñ ku ñu fi wax leneen lu teg gu wut sa sëriñ di nga gis réaction boo xamante ne si dina weesu euh, li nga xam ne loolu lañ ciy séentu ci loolu bi njëkk ba député yi yeewi askan wi ñëw nañ ne dañuy def appel au règlement parce que réglement intérieur moom moo tënk assemblée nationale ñu indi ay article article 57 58 59 wax ne la police de l'assemblée nationale président assemblée bi moom moo ko war a def ñu gis ne député yi bu ñuy wax yu yeewi askan wi da ngay gis waa côté bale waa Benno Bokk Yaakaar seen député yi dañ leen di saaga saaga te saaga yu ñàkk teggin ñun ñi di bàyyi muy dem ñun ñi di bàyyi muy dem mais dafa am loo xamante ne si ni ko Aba waxee sànq dafa am loo xam ne kenn du ko nangu ci pays boo xam ne pays démocratique la pays boo xam ne majoritairement ay jullit ak ay nitu diine ñoom ñoo fi nekk saaga nga benn yoon ñun ñi bloqué ñun ñi wax ñu ne da nga jéggalu démb bi ñu ñëwee dañ ne dafay jéggalu jéggaluwut mu def li mu def ñëpp tegaat ci seen bët tey mu ñëwaat keneen ñëwaat di def appel au règlement pour rappeler au président li nga xamante ne si moom mooy les articles 57 58 et 59 pareegul ñuy wax mu ne man maa tey kon c'est-à-dire assume li nga xamante ne si mooy saaga yu mu def waxi ñàkk teggin yi mu wax ba pare continuer di ko def président assemblée nationale loolu moo ci gën a malheureux mm-hmm. da koy bàyyi muy continuer di def di wax comme si moom daal moom moom moom moom ñëpp président bi sax amul autorité envers ñi nga xamante ne si ñoom ñooy groupe parlementaire loolu mu doon loo xamante ne si lu ñuy naqarlu la parce que nit Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ne si nit kenn du ko xeebal gëmam kenn du ko xeebal fameem kenn du ko xeebal bésam séance bi dañu ko reprendre tant que moom mi nga xamante ne si moo defaat jëf ji nga xamante ne si moom moo indi problème mu interruption yi excusez wut wala boog mu mu ñu jox ko sanction boo xam ne elle ne sera pas dans la salle pour mën a assister li nga xamante ne si moom mooy passage yu ministère de de de la justice ak yeneen ministères yi nga xamante ne si moom mooy ñëw parce que y a y a trop de laisser aller on a laissé trop faire ba affaire bi commencé di jël ampleur boo xamante ne si waru fa woon a yegg. waaw morceau yu xonq yi pour montrer na que parce que tey c'est le passage du ministère de la justice Sénégal lu ne mën nga wax am na fi ba mu def justice parce que justice dafa war a jouer rôle impartialité justice ñu def justice pour ñii def justice pour ñele dañuy gis ne toujours séparation de pouvoir bi ñuy wax sax entre l'exécutif et euh, le le le le pouvoir judiciaire amul parce que da ngay gis président de la république sax moom mooy ñëw taxaw ne am na dossier yoo xam ne man maa ci teg sama sama loxo dossier yooyu kenn du ko poursuivre le début après suma frère euh, euh monsieur le maire euh, Ahmed Aïdara wax ci depuis le début ñu doon attirer attention opinion publique bi ci li xew ci assemblée nationale depuis le 12 yaakaaroon ni sax li xewoon le 12 daañu ko fàtte mais ndekete yow kañu teg ci bopp présidence de l' assemblée nationale mooy problème bi ñu ngi commencé découvrir son vrai visage il est pire même que Macky Sall mi nga xam dañu yaakaaroon ni Sénégal dootul amati un président comme lui mais assemblée nationale ki ñu fi gis nii moo raw Macky Sall ci ci ci ci ci ci njuuj njaaj ak caay-caay ak dictature. parce que suñu euh, mbokk yi wax nañ ko à chaque fois que ñu démarrer une séance jël parole day bàyyi ay ñoñam. lu leen neex ñu wax ko ay saaga te boo ngeen ko xoolee da leen ko fixé seen kama yenn saa sax day muuñ ree mel ni kuy wane ni mbégte la ci muy déglu ñooñu ñuy saaga keroog li fi am ñu def appel au règlement te wax naa ko keroog nee naa ko ku artuwul di nga atte ñu def appel au règlement ne ko ngir yàlla ñun bu ñuy wax waxal sa gars yi ñu bàyyi ñu wax te loolu règlement moo ko wax mu ne loolu moom mooy apprécier yoonu kenn nekku ci loolu lañu ñu wax tey même chose bi nar a xew mu defaat la même chose kenn yéeg di def appel au règlement ndaw si nga xam ne moo taxawoon loolu moo tax li am tey mu am fii ndaw si dafa récidiver te loolu ñun nag mënuñu koo nangu ñun on va aller plus loin on va exiger même à ce que lui le président de l'Assemblée le soi-disant président la qu'il ne dirige même plus les sessions parce que vice-président yi fi jaar yëpp diriger session yi amul benn coow amul benn problème parce que ñoom règlement intérieur bi la ñuy teg ci kaw table bi di ko respecté moom il se fout du et wax ñu dana tey nag muy yuuxu nit ñi en tant que président de l'Assemblée di yuuxu nit ñi di gëdd nit ñi di def lu ko neex loolu duñ ko nangu décision bi ñu jël mooy travaux yi du am tant ndaw si baaluwul te on va aller plus loin on va exiger même à ce que lui il ne soit plus il ne soit qu'il ne préside plus aux séances foofu lañ jëm ak moom parce que c'est un incapable mënul gérer la présidence de l'Assemblée nationale du ci Abbas Fall Abbas du non conséquence du dara dañu bëgg rek démocratie fi mu toll ci Sénégal ñu indi bëgg fii assemblée nationale ñu nekk moitié moitié cette démocratie là kenn ku ci ne accepté ko ñu appliqué ko à la règle mënuñu ko mënuñu ko ñu def comme ñoom parce que ñoom loolu lañu bëggoon en réalité Abba wax na ko président Macky Sall dafa bëgg woon Sénégal yëpp ne assemblée nationale ñi ngeen fa yóbbu yàq nañu assemblée loolu la bëgg loolu nag danañ ko ci fekk ci ñaar danañ ko fekk ci xam parce que ñun yéen yéen a ngi fi journaliste yi dégg ngeen suñu intervention mm-hmm. mosu leen dégg benn député yow askan bi saaga te ñoom ku ci dëgg lan nga am comme kii Sweet Beauté ëmbaleur euh, assassin yooyu rek la ñuy wax loolu rek loolu rek la ñuy wax comme argument amul leneen la ñuy wax comme argument alors que ñun nous sommes sur des débats de fond mais comme demee na noonu nag loolu la ñu bëgg dinañ ko wane ñun suñu xam-xam dinañ ko yor di ko wane waaye bu xeex jotee tamit daañu xeex voilà voilà waaw bon maa ngi nuyu taskatu xabaar yëpp man moom li ma ci bëggoon wax leen kese la Euh, comme ni ko président Abbas waxee ñun soxlaatuñ sax léegi mu présenter ay excuses waaye Amy Ndiaye Amy Ndiaye ñii bi liñ bëgg mooy mu génn salle bi ñu bañ a bokkateeg moom salle bi parce que yenn yëfu maa tey la def na li muy def ñu exiger ay excuses ñuy tey suba ginnaaw suba ba mu dem def interview maanaam dëggal ne loolu loolu muy def yëpp nag man dama jàpp ne Farba Ngom am na ci ngandi part de responsabilité ak président Macky sal gars yi moom duñ tudd tur man nag damay tudd soo xoolee ñoom seen toogaay lépp lu ñu def ci biir assemblée bi rek Farba même bu tàcc jotee moom moo jóg wax na tàccu leen toog leen yuuxoo leen maanaam lu ñu fi def far ba moo ëpp doole sax sa président Fantos kii nekk fi nii moom président gendarmerie la ñoo ko installé il n'a pas été installé par les députés kenn voté lu ko li ñu bëgg nag mooy ce soi-disant président là moom dootul présider Abdoulaye Diouf Sarr ci ñoom la bokk jaar na fi Malick Diop ci ñoom la bokk jaar na fi bu ñu defee rappel au règlement présidence yu normal la ñuy am ku fi jalgati ci ñoom sax da gis ñu calmé la mais moom gis nga tey bi san Sano di wax mais da koo yuuxu ne ko waaye waxal laa la wax wala nga jóge fi comme si ku nekk ak say doom mag la moo xam ne amul yar xëj na nag ni ñu ko falee tamit moom xaw ma da koo gëmewul xaw ma nu mu demee noonu li ñu bëgg nag mooy muy moom muy ñibbi ñu ñibbi sëriñ bi nag ñëpp tey ay Moustarchidine lañ ñëpp nag laa wax sans noonu la yeewi di doxee euh, sëñ mu Moustapha nag bon moom moom boo demee sax xam naa jéggale na moom jikko yonent la yor jikko baayam la yor almaktum mais ñi mu nekkal ñëpp kenn jéggalewul en commençant par man boobu parce que yenn manque de respect munu koo weesu assemblée bi nag nii lay demee et puis c'est normal ñoom nag yàlla dalee na nattu ñëw nañu ak ay mag ñi ñu doon xeeb naan ay remplaçant lañ nekk ay xale ñëw demine leen léegi nag coow li moom mooy bon fenn fi la gars yi bëggul woon yegg gis nga groupe whatsapp yeew bis bu nekk dañ naan bu ñu leen leen topp bu leen topp comme ni ko Abbas di waxee man nag bu gars yi jaaree nii presque man contraire bi laay wax parce que dama naan ñii Macky Sall xamul arme conventionnelle Macky xamu ko Macky na ko nekk les armes non conventionnelles man de fi ma nekk si yi géej waaye noonu laa def ba gañ a rakk ji parce que ñii xamuñu laa boo fi nekkee naan da jéem a appliquer loi appliquer ne Macky xamul loolu xamu ko. lenn rek la xam mooy rapport de force comme ni ko Sonko di waxee kii xeex la xam léegi nag loolu moom moo fi am ministre de la justice bi nag pour muy leer conditions yi nar a teg ñun xam nañ ne ñoom duñ duñ ci d' accord kon moo tax tey fii vote du fi am te xam nga ñun buñ ne vote du fi am vote du fi am. madame ñi ngi jéggalu ñoo ngi jégg wàllu askan bi ndax su ñun su doon suñu sago en tant que maa ngi tudd Ndiallo Bathily député laa yeewi askan bi ma bëggoon rek jéggalu si wa si askan bi yëpp ndax lii nekkul loo xamante ne bëggoon nañ ko waaye sànq da nga posé question ne lan moo tax ñu takk brassard rouge bi man sax sama bopp laa ko takk pour wan leen ne que ne on n'est pas content du tout ministre de la justice lañ fi woo tey mais injustice bi fii ci assemblée nationale la commencé looloo tax ñu bëgg leen wan ne que ne tey injustice fii la commencé ñoom ñu woo justice pour ministre bi xam ne justice amu fi ba pare askan bi li ñuy jox ci yóbbante ci wàllu injustice dafa bëri moo tax dañu bëgg commencé ko fii pour mu law ci ci askan bi yëpp ñoo ngi jéggalu ci jéggalu merci waaw c'est Mamadou ci coalition Yewwi Askan Wi nonu bokk mooy li nga xamante ne remarqué nañ ko ci assemblée nationale bi mooy waa coalition Yewwi Askan Wi liggéey bi leen war ñu ngi koy def taxawu soxla askan wi wax ko waaye coalition Benno Bokk Yaakaar ay saaga nañ fi nekke te ki nga xamante ne moom mooy seen président groupe parlementaire il n'est pas responsable bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy instigateurs yi ñoom ñooy saagaloo nit ñi seen groupe nonu yare yu jigéen yoo xamante ne kuy wax ñu saaga la saaga yooyu nag duñu ko nangu parce que fii liggéey pour askan wi moom moo ñu fi tax a jóg ñu ngi jéggalu nag waa askan wi waaye itam taxawaay bi ci war daañu ko taxaw ci kàttanu yàlla ba bépp saaga bépp saaga boo xamante ne defati nañ ko fi liggéey bi du mën a du mën a continuer te incha allah dañuy exiger à que moom mu euh, euh, jéggalu merci beaucoup. limite à tout une limite à l'injure il y une limite à l'outrance il y a une au manque Le président de la République a pris à sa défaite évidente, d'humilier la 14e en s'organisant pour qu'il y des députés qui à la bouche. le 25 novembre, date d'ouverture de la commission budgétaire, nous avons reçu un traitement qui n'est fait que d'injures et d'un manque de respect notoire face incapacité de tenir un débat d'idées. nos leaders de la coalition Yewwi Askan Wi nous ont toujours enjoint de donner la meilleure image de l'Assemblée. Raison pour laquelle nous n'avons jamais répondu à ces injures. Mais la dernière fois, lorsque nous avons interpellé le président Mamdiop, il a fait la sourde oreille, il s'est passé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était une dérive grave. Lorsque un député, la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est permis, face au soutien et au encouragement de ses responsables, d'insulter Nous avions exigé des excuses publiques. Nous avions dit que nous n'allions pas reprendre les travaux tant que cette étude allait continuer. Face à la demande répétitive et par respect pour l'institution et pour les Sénégalais, nous avions préféré continuer les travaux et laisser cette dame l'opinion publique. Aujourd'hui encore, face à ces injures, nous avons interpellé le président qui a rétorqué encore une fois un énervement et un mépris face à notre coalition. Et cette bonne dame s'est permis de dire qu'elle s'en foutait éperdument. Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, elle l'assume et moo tey maa tey nag maa moo koy faj la coalition Yewwi Askan Wi interpelle le président interpelle le ministre chargé des relations avec les institutions sur les capacités du président Amadou Mame Diop il n'y a jamais d'incident quand il y a une autre présidence toutes les vice-présidences sont bien passées pourquoi il n'y a Pourquoi ils n'arrêtent pas la science lorsqu'elle est perturbée par les députés de Benno Bokuyaka Et nous disons à l'opinion que nous n'accepterons plus que les sciences continuent tant que cette dame-là continue à être présente et qu'elle n'a pas présenté Comme elle dit que moo tey ñun tamit on ne laissera pas ça passer. On ne continuera plus la science tant qu'elle ne présentera pas ses excuses. Voilà, on n'acceptera plus qu'elle continue à avoir cette position méprisante face à nos coalitions, méprisante face à nos leaders, méprisante face au peuple sénégalais.